أكراد بخيرا أمن الوتر مات فهذا الجملة الأسواء أستارا خليت عن سوار رضوان قالوا كما خليت بقاد سير لله مرديا هنقو وخال عزاء وارا وأسرارا أمات من ساقا إن فائزا أبدا خلال وإبا لكم لا يا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 sabbih isma rabbika al-a'laa allazii xadara fahadaa wallazii axraja al-mar'aa faja'alahu xushaa'an ahwaa sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa'a allah innahu ya'lamu al-jahra wa maa yaxfaa wa nuyassiruka lil-yusraa wa zakkir in nafa'ati az-zikraa wa yadhakkaru man yaxshaa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 akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تاها ونفس وما سواها فلعمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبحش أشقاها fa qaala lahum rasulullahi naaqatallahi wa suqyaaha fa kadabuuhu fa aqaruuha fa damdama alayhi rabbuhum bi shanbihim fa sawaaha falaa yaqaafu uqbaaha allahu akbar الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام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 rabbi audu bika min hamashati shayatin wa audu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin ama baadu hada alyawmu yawmu alciid li kulli muminin muslimin muxsinin saciid faskuru llaha tabaraka wa taala fihi alhamdulilahi alladi jacala yawma alciid yawma tawsicatin wa tafrihi wal itlaaq والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتهى عليه السلام عليه سلامه بجميع مختفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi fi teew yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di jiital ci ndokkeel yi ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam di leen baalu àq tey ñaan sunu boroom mu boole ñu baal àq di ñaan yàlla sunu boroom yàggal leen fi lool di jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi sëriñ Fallu Mbakke ak sëriñ Aafiya Mbakke ak sëriñ Cheikhouna Boussa ak sëriñ Yusufa Jenn di nuyit mbokk yi fi teew ñëpp di leen baalu àq di am mbégte lool ci teew gi nu teew ci barab boo xam ni dañu fee teew ngir jaamu yàlla goo xam ni digaloon nanu ko ñu di ko mottali tey te mooy weer wu tedd wii ñu jóge di fàttali lu néew rek ci ab dénkaane boo xam ni ñun ñëpp li ñu ci jublu moo di ak laabire dénkaane googu nag dafa jub ci li ñuy wax jikko yi ndax ku ne xam na ni xutba bii ñu doon jàng li muy li ci sëriñ bi jublu lu dara lu may rafetal jikko rek ak fexe ba nit ki nekk dëgg-dëgg ab jullit nekk dëgg-dëgg ku aji gëm loolu rek moo làmboo xutba boobu ñu doon jàng ginnaaw loolu nag te xam nañu jamono ji dafa xaw a xat ñu tënk tuuti rek ci baati wolof yoo xam ni des koy fàttali suñu bopp waaye fàttaliku jaami yàlla yépp bokk na ci loolu nag sunu ko waxee xam nga xat-xatu jamono ni mu mel ak li xew ci àdduna bi léegi li tasaaroo lool ci li ñuy wax ci mbooleem jikko yoo xam ni dafa mel ni dafa tasaaroo lool te jikko yi eh, li gënoon cib jullit mooy mu làmboo jikko yu rafet yu baax yooyu bokk na ci jikko yi nga xam ne dafa tasaaroo te ba ëpp lool te mooy melokaanu jikko yu ñaaw yi léegi kon nag bokk na ci xeet yi nga xam ni dañu ko tannoon ni danañ ci waxtaan tuuti te mooy li nga xam ni nit mënu koo ñàkk ab jullit mënu koo ñàkk te mooy ihsaanu te mooy rafetal maanaam nga xam ne lépp loo xam ne da nga koy def lu mu mën di doon nga jiital ci ak rafetal bokk na ci jikko yooyu ba tey taawunu te mooy dimbalante dimbalante nag ci diggal nit lu baax dimbalante ci jàppante ci lu baax dimbalante ci diglante lu baax dimbalante ci dimbalante ci nu ko waay dégge waaye na ne kenn ku ne rek mu seet mbokkum julitam mu di ko dimbali te yàlla tax bokk na ci it xusnu zanni mooy rafet njortu julit bu ne fexe ba maanaam sa morom julit waxtu wu ne ngay am ci moom rafetu njortu rafetu njortu bokk na ci it li ñuy wax mën muñ bokk na ci jikko yi ñu gën a tàmm ci ab julit mooy mën a muñ lool baaxoo saxoo muñ bokk na ci yi ñu yi nga xam ne des koy taamu ci ab julit lu mel ni lu mooy maanu bokk na ci ci jikko yi nga xam ni dañ koo sopp lool ci ab julit mooy lu wax li ñuy wax doylu xanaatu doylu bokk na ci jikko yi nga xam ni ci jamono ji nag dara gënu ko ci te mooy a asomtu mooy noppi ci lépp loo xam ni moo am amul njariñ jikko yooyu nag dafa nekk loo xam ni sëriñ bi fonk na ko lool ba bind ko ci téere yu baree bari bokk na ci jikko yooyu ba tey lu mel ni yërmande ak tabe tabe dimbal fee dimbali la dimbali sa mbokk ci lu baax ci digal ko lu baax di ko tere lu bon waaye xam ngeen ni tabe tabe nag ajuwul ci ku bari la kenn ku ne xam nga ka nga war a ka nga ëppale nga di ko dimbali te yàlla tax maanaam tabe moom yëggul ci ku bari la lool waaye koo gis rek ci àdduna muy dox am na ku mu ëppale képp koo xam ni ka nga ëppale nag sag tab daa war a jëm ci moom ak li nga xam ni mooy suturaalante julit ñëpp ku ne sa moroomum julit nga di ko suturaal te yàlla rek tax waaye biñ ci gën a euh, sopp nag te gën koo bëgg te nga xam ne lu am solo la ci ab julit mooy dëggu maanaam yooyu yëpp mënoo koo def moom te làmboowoo li ñuy wax dëggu kon nag dëggu lu am solo la lool mooy di jëf li ngay jëf dëppook dëggu li ngay wax it lépp di dëggu saw melokaan it lépp di dëggu ak it bokk na ci jikko yi ba tey mag ndaw ñi ñu leen di yërëm bu baax maanaam toqi ndaw ñi ci diine di leen yar te di leen yërëm waaye ndaw ñiit ñu fexe ba di wekk mag ñi bokk na ci jikko yi nga xam ni dafa bari lool te ku ne war koo bàyyi xel te muy dox lool ci li nga xam ni mooy internet bi mooy sosolante bi waxante lu ñaaw xassante bi weerante bi yooyu yëpp jikko la yoo xam ni ab jullit waru ko làmboo ndax jullit li li li li doon biram mooy muy nëbbal mbooloo moroomum jullitam ay ayibam ba du ko feeñal ndax yonente bi aleyhi salaatu wasalaam wax na ni bépp jullit boo xam ne suturaal na moroomum jullitam yàlla dana ko suturaal fii ci àdduna ak àllaaxira mooy loo yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokkum jullit loo yéene sa bopp wala looy teg sa bopp xool ko ba xam attan nga ko bala nga ko teg kenn wax muy wax muy jëf xool ko sa bopp rek soo ko nattee sa bopp ba mu xam ni bëgg nga ko nga doo koo mën a teg sa bopp kon nag mbokk yi ñoo ngi dellu di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci jaamu yàlla yi ñu fi jaamu ci weer wu sell wi ñu génn moo xam njàngum alquran mi moo xam njàngum xasaayit mi moo xam waxtaan yu am solo yi nga xam ne waa daayira bi doon nañ ko taxawee jërë ngeen jëf loolooy li am solo te ñu bàyyi ci xel bu baax te xam ni loolooy li gënal sëriñ bi te ndaw ci lool rek la war a mën a jëm te mooy ndaw bu tolloo ci góorgóorlu jëm ci jub jëm ci jaamu yàlla dafa war a gaaw góorgóorlu rawatina nag barab yii ñu def nuñ koy waxee rek du barab bu ñuy barkeelu du barab boo xam ne dañ koo def ngir mu rafet waaye barab bu ñuy jaamoo yàlla la barab bu ñuy jaamoo yàlla nag sunu xel dal na lool macha allah ci naafile yi fi doon am ci jataay yi nga xam ni ñu fi ëpp seeni at ñu néew lañ loolu nag day dalal sunu xel bu baax xam ne li sëriñ bi bëggoon mi ngi mi ngi koy am kon nag nañ ci gën a góorgóorlu te fàttaliku bu baax ñi nga xam ni nekkoon nañ fi daaw te nekkuñu fi te yàlla dogal ñu nekk fi te ñaan yàlla mu fekke waat ñu ëllëg kon nag nañ góorlu bu baax te xam ni kenn ku ne ci ñun góor góorlu ci lépp ci jikko yi ñu doon wax ak lépp lu baax ndax dem munta ñàkk te waxtu wu ne kenn ku ne dana la dab foo mën a làqu koo mën a doon ak foo mën a aju dee dana ñëw nga def ko balaa dee di ñëw nag di la yóbbu te it nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ni nit ñi léegi yitte yi dafa baree bari ba macha allah seenu jot moom mayetu leen lu bari kenn ku ne ci ñun boo bëggee xam boo faatoo nan la la nit ñi def xoolal ñi faatu nu leen nit ñi def wala nga xool kenn ku ne sab xarit bu mu faatoo noo ko def léeg-léeg nga fàtte ko lu yàgg doo ko ñaanal ndax lan yittee àdduna kon na comme demagun nañ góorgóorlu bu baax te xam ni tëddaay bu yàgg la te du jaas te xam ni dara du fa doy ci lu baax te lépp loo fa yóbbu da nga ko mën a xéewloo kon nag nañ góorgóorlu bu baax nekk ci lu baax boole koo nangoo liggéey ak jaamu yàlla sëriñ bi sax noonu la ko doon dafa naa naan jiital nangoo liggéey ak jaamu yàlla kon loolu mënta ñàkk ci ab taalibe mënta ñàkk ci ab taalibe nañ ci góorgóorlu lu baax ñoo ngi jéggulu ñëpp di baalu ak ñëpp di rafet njort ci ni alhamdulilahi rabbil alamin ci yi fi xew ci koor waaye nag waxuñu rek dañoo koor gi dafa jàll ñu daal di tëj lu baax déedéet tëjuñu ko de lu baax du tëj mukk kenn ku ne la nga nekkoon gën ca góorgóorlu ñoo ngi jéggulu bu baax ci jiite gi ndax kilifa yaa ngi fi ne dañuy wax rek ndigal moom mu nee su koo bët mu jóge woon ci Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ne woon kon nañ ko taxawu waaye ñu ngi koy jéggalu lu baax di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi te may leen ak wér lépp yéen la fii moom lu fi am rek yéen la ndax bu seen ginnaaw seddee topp gi day daal di yomb ñëw ngeen fi ñëwoon di fi wétal sunu borom nekk fi lépp mën na leen fee fekk ndax sëriñ bi moom mooy ñaagal rek te kenn ku ne barab ba nga ne di fa dundal sëriñ bi bu yàggee moo fay yónnee rek ñoo ngi siyaar ñëpp di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxob sëriñ Abdul Baaxe Ka mu tegal ñu ko ci mbokki taalibe yëpp di sant jigéen ñi ci taxawaay bi bu baax a baax a baax ci turu sëriñ Fàllu ak sëriñ Afia di sant sëriñ Cheikhouna mi nga xam ni daara ju mag la yor fii ñëwee sax laa ko wax ni ko su fekkonte ne xam nañ ni ku sant Moussa ngi suñ biir ñu jiite ndax loolu sëriñ bi moo leen ko jagleel sëriñ Yuusufa Jenn mu sëriñ Naar ak ñi nga xam ne ñoo taxawee ñëpp bu ñu limee juum imaam yit ñi ngi jël nuyoo yëpp teg ko ci sëriñ Abdul Xaadir mu jot leen ñu ko imaam yi fi doon naafile yëpp bu dee daa daaira bi moom macha allah ndax lii li tax ngeen man ko mooy da leen a fekkoon ngeen di dox ku mu fekk ngay dox nag day yomb ci ñu teg la ci nga dem kon nag góorgóorlu leen yenn waa daayira bi góorgóorlu leen bu baax ci njiital Serigne Mouhamad Diop góorgóorlu leen bu baax mag ñi am nañ ci yéen yaakaar bu baax a baax yàlla bu yaakaar tas ci yéen da ngeen ci gën a góorgóorlu bu baax liggéey baa ngoog bu ngeen ma gisee liggéey baa ngoog jumaa ji ni ñu ko waxe woon rek tabaxal ko rek lañ ci am taxawal ko rek lañ ci am waaye ñoog yéen yéen ci bokk yam bu ngeen ñu gisee wéyal leen ko bu ngeen ñu gisul wéyal leen ko la Aboubacar waxoon rek laay wax man kaana yaabudu muhammad fa inna muhammad qad maat wa man kaana yaabudu llah fa inna allah xayun la yamut képp koo xam ne da ngay jaamu yonante bi xam xamal yonante bi jóge na fi ku dul kuy jaamu suñ borom nag suñ borom moomu du fi jóg kon kuy jaamu nag jaamul yàlla kuy jàpp ci mbir jàpp ca ngir yàlla bul ko jàpp mukk ngir diw bul ci jàpp mukk ngir bëgg cant bul ci jàpp mukk ngir bëgg ñu gis la waaye def ko ngir li wacci laayi jëmmi yàlla yàlla moom moo fi dug waaye suñ maxtaa day dem keneen day dem ñëpp dem waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.